bienvenue sur votre chaîne de télévision Leral TV si beneen émission bi nga xamante ne euh, moom mooy hip hop du caaxaan from the hood from the ghetto ci beneen univers hip hop galsen ñëw fi seet si benn ndaanaanu hip hop seen quelqu'un qui n'est plus à présenter ñu ñëw pour waxtaan ak moom lu ci lu bëri ci hip hop galsen ci carrière parce que quelqu'un boo xam ne ci côté animation hip hop liggéey na ci lu bëri ci côté aussi jàppale ndaw yi ci hip bi def na ci lu bëri mais ci lyrics aussi waxal na askan wi FATA fe a te a ta fata el présidente salaamaaleykum fata waaleykum salaam di Jaco maa lay ziar di la nuyu di la bëggee ak euh, euh, ñi nga xamante ne ñoo lay seetaan ñëpp ci sa émission bi di kontaan bu baax si you si invitation bi di bëggee you know internaute yëpp kontaan naa si ci nga am ma d'accord mhm. alors ça fait plaisir euh, dalal ku mel ni yow Fata parce que ñu wax hip hop Galsen te waxuñu ku mel ni yow parce que euh, ni ma koy waxee saa su ne am na ñoo xam ne tey hip hop bu nekkoon immeuble la ay appartement lañ ciy doon alors Fata hip hop du caaxaan moom noonu la bi du caaxaan hip hop du caaxaan. Hmm. Euh, musique la boo xamante ni déjà ay ndaw ñoo ko gàddu. donc du caaxaan maintenant. Euh, musique la boo xamante ni aussi dafa juddu ci ñaxtu waxal nit ñi la voix de sans voix. ñi ngi mm-hmm. xamante ni seen baat yeggul fenn mais aussi musique la buy communiquer bu war a jàngale. Mm-hmm. musique la aussi pour entertain pour di waxtaanee am fun entertainment musique la aussi bu bu ñuy liggéeyee di defee xaalis mm-hmm. donc yooyu yëpp bu ñu ciy dégg nag. Euh, liggéey la mais pour ne pas diir ce que les Américains disent work hard and play hard. play harder mooy liggéeyal bu baax foowal bu baax loolu la ak hip hop pour na pas diir du caaxaan. dafa def dafa waxaale dafa ànd ak ay slogan yu fondamental yu yu muy wax ne peace love harmony and having fun. so loolu nag da dem ba comprendre ne Sénégal. Euh, su ñu waxee loolu dañ koy gën a dem ci dëgëral bi daal. Hmm. man daal centre li may centre Sénégal lu ci ëpp ci dëgëral bi la. Hmm. plutôt que ci fën bi. xam nga yooyu yëpp dafa ñëwaale ak hip hop. Hmm. mais dama gis ni Sénégal li ñuy jàngale su dee ay li ma ko mën a tuddee ay livres yu bëri euh, bu bu hardcore bi rek la ñu mën a la ñuy jàngale fii. ci benn branche rek la ñuy jàdd la ñu gën a waaw ñu gën a taxaw. alors tey euh, mënuñu wax aussi parce que wax nga ci benn vole bu am solo mooy waxal les sans Euh, tey bu ñu gisee euh, chaque fois quand je dis que le message dans le rap dañuy gis ne Fata euh, muy en tant que MC mais en tant que aussi ci groupe bi nga nekkoon yàgg nga teewal askan wi def ngeen fi ay son yu bëri la France a trahi donc def ngeen ay son yoo xam ne aussi ba tey. boo koy dégluwaat da ngay mel ni actualité da ngay ànd ak jamono lu xew si réew mi. alors aujourd'hui tey boo toogee ba des sons yoo xam ne ni nga ko pendant des années. nga koy dég dégluwaat wala ngay gis ne li ngeen doon wax ça fait dix ans mu ngi le rap moom euh, c'est un gymnastique intellectuelle mm mm-hmm. c'est de la gymnastique intellectuelle et on dit que même si tu n'as pas un certain niveau d'études doo koy mën a def parce que c'est des figures de style qui se retrouvent mm vraiment da ngay consacrer du temps et de la réflexion pour bind ay textes mm-hmm. donc euh, si aujourd'hui plein de rappeurs ont dû écrire des morceaux yoo xamante ni tey bu ñu toogaatee di di ko déglu mu conforter leen. Euh, ça veut dire c'est de la vision ça veut dire que c'est de la vision et c'est dommage que dans le hip-hop sénégalais soo dee xool génération bu bees bi en majorité sooy laaj laaj booy yi nekk ci musique boo leen di laaj place su noonu noonu wala nga place ci ci ci. ci taxawaayu hip hop ci bi mu juddoo fii Sénégal. Mhm. nga laaj leen taxawaayu awadi wala taxawaayu duñ la mën a wax ban place la ñuy jox ci société bi. Mhm. c'est dommage parce que mhm. kenn imagé wu ko. et donc du euh, dafay wane tout le temps ne hip hop ci biir contenu ci message yi mooy jëmmal nit ki au fir du temps dafay wane sa personnalité tamit. parce que liñ naan ko wax feeñ loo yàgg bind. bu dee yaa koy bind day dem ba nuroog yow quoi. dëgg je pense que y' a pas longtemps bi ma amee benn biif bu ndaw ak Mollah c'est ce que je lui mm-hmm. bi muy wax ay waxu loo defal askan lu ngeen di waxal askan bi ay waxu France dégage bu mm-hmm. Guy Marius ce morceau-là, La France a trahi, m'a très bien réconforté, a réconforté mes paroles parce que fekk que nous bindoon nañ ko, hmm. gëmoon nañ ko té daaw nañ ko dañ di jouer. même actualité réew on vit déjà l'enfer defoon ngeen ko. Justement. Voilà. Alors tey bu ñu toggee aussi euh, di waxtaan parce que la nouvelle génération dañu war xam. donc da ciy baax aussi ñu def focus ci yenn yi bokk na ci euh, bu ñuy waxtaanee tey Anga comme Fata hip-hop film. Mais ay ndaw yu jaar sa loxo. oui bien sûr bëri na trop. tey boo leen doon énumérer ñoo xam ne tey euh, jaar nañ sa loxo. te am na au moins lu ñu xaw a def ci hip hop. saa hmm. tey ndaw ñi xam ne tamit en dehors de MC. Hmm. Euh, en dehors de d' am na ñoo xam ne tu les as vraiment la main quoi tu les as tendu. non macha allah dañuy bëri ba pare def ci bëri ñoo xamante ni mënoo leen mënatoo leen. xam xam nga leen xam nga leen ñenn ñi xamatu xamoo woon ni sax ndeke hip hop feeling amoon na influence boobu un gars comme d Dip mosul dugg. ci hypophiling. Mm-hmm. mais moom nee na hypophiling moo ko moo ko rabloo. moo ko rabloo euh, nee na bu amaan émission bu génnee euh, école am bu génnee rek mi ngi attelé wu si affaire yi. Mm-hmm. un comme Ngaaka. Mm-hmm. nee ma moom ñëw na benn mm, présélection hypophilie ñu ñu ñu ko. tu vois donc ma fekk na boobu mënu ko woon xam quoi. des gens comme Canabas. qui aujourd'hui a été éliminé très tôt ci qualification yi ba après mu def li mu def si carrière euh, c'est intéressant mhm. c'est intéressant euh, des gars comme No Name qui aujourd'hui ñu ngi yore un potentiel intellectuel ci ci musique bi ci industrie digitale bi mhm. euh, tu, tu ne peux qu'être fier dégg un gars comme Rescapé qui aujourd'hui mu ngi dëkk États-Unis yor jabaram mhm. mais di continuer di bëgg hip hop. ñoom ñëpp ah, et tant d'autres cëf kaagu kaagu. xam nga et tant d'autres tant d'autres da ngay énumérer da sonn quoi. dangay ngay xam ne déjà dañ def ay premier partie ay deuxième partie. Mm-hmm. am ñoo xam ne dem nañ ba final ci la gars yi gën a bàyyi xel ci kan moo jël. mooy justement kan moo deuxième. ay MLS Dream. Yeah. Euh, pour parler de MLS Dream je vais directement parler de mon frère aussi El Phénoméno. El Phénoméno El Phénoméno bu gagné benn concours bi bu mujj bi. Mm-hmm. te d'ailleurs bi may dem non pas bu mujj bi avant dernier bi bi ma demee nii Paris rek daf ma bind message ne ma grand foo nekk wax ma fa ma ñëw fekk la fa quoi tu euh, vraiment ma kontaan si parce que. et tant d'autres mm. des gens aussi ci bi nga xam ne amoon na compétition mm-hmm. à travers docteur mais yeneen boo yëpp ci ci battle bi ci dance bi euh, break dance bi boo yëpp dañ fa atelier wu boo yu bari yooyu gis léegi ñuy ci ñu bëri dañ fa daan jaar lu bëri donc euh, mais booy ñaa kase ñaa kase <laughs> bu demee ba gën a nekk nii sawar ci affaire u télé ak ay affaire u kii c'est grâce à hip te il le dit souvent donc euh, parce que tout le temps bu ñu daan def hip hop feeling ngi ñëw toog si kanam. ñaa xarañ lo ñaa mm. pour mu gën a leer. alors euh, daanoon nañ gis aussi Envie FM yaa ngi doon def benn émission bu am solo. Mm. Euh, je me rappelle très bien bu ñu daan dem école on s'est préparé pour xam yan booy ñuy freestyle tey. Mm. mu nekkoon innovation booy yu fa lañ jàngee freestyle. waaye parce dama benn côté dama leen koy pour ñëw. Mm-hmm. mais a def chaque instant leen ñu. au téléphone. ñu woote ma dugal leen tegal leen benn biit quoi donc il se faisait des des trucs intéressants ay biif ay yenn baaraw. yoo xamante ni dañ ko daan def ci à travers émission euh, ci ay instrumental yu may teg ñoom ñu nekk seen kër di woote di dugg après benn benn moment si la créé free concept. free concept bu doon nekk chaque mercredi gaayab di ñëw di jóge fu ne di ñëw si euh, Envie di rang mu bëri ay nit. vraiment mu nekkoon affaire yu extraordinaire ñu yéeg par deux trois cinq minutes wàccaat booy ñibbi booy mu leen daan jaral di déplacer wu fu sore ñëw. pour baatal benn cinq minutes demaat quoi tu vois. et euh, quand même teg nañ jéego. alors donc euh, c'est c'est très important ñu euh, énumérer woon lii parce que. da ciy baax tamit ñuy fàttali gars yi ne grand yi dañu liggéey lu bëri ci pop Galsen. et que la nouvelle génération il faut ñuy bàyyi xel di def back to the roots di fàttalu et di rendre hommage yenn grands yi de leur vivant. j'ai vu des comme ay euh, waa Akhlou Brick def ko gis naa ci ay m MC yoo xam ne toog nañ reconnaître ne Fata euh, tey su ma jëlee yoon bi wala su ma tollee fii tey ñoom ñoo koy def mais Fata aussi est-ce que xam nga ne am na ñoo xam ne même côté vestimentaire da leen euh, da nga leen à ce ñu xam ñu ñuy solo lu clean en fait ñu solo lu xam ne day présentable tout xaw ma ndax seetlu nga loolu tamit am na parce que amoon na ay tàngaay dañ la doon gis ak Nigéja dañ daan gis. bon kenn dañu foogoon ne sax ni nga jaa sa frère la tellement que voilà quoi vous faisiez rêver une génération ci côté boobu. oui bon de base xam nga aussi euh, bon mooy li may wax rek dañu am may charte dafa am ay charte yoo ni ci hip hop dafa ñëwaat ak lépp quoi. Mm-hmm. hip hop je veux dire c'est-à-dire ni ko defaree. est-ce que xam nga hip hop euh, qui est né dans les soixante dix dans le Bronx yëpp yi ko fekk si yëpp ba ci style bi. Mm-hmm. ba ci edutainment bi mhm. entertainment everything dafa ñëw au fur et à mesure d'évolution bi donc euh, d'ailleurs brain yi dàll yi yëre yi casquette yi bu ci ne dafa am histoire am te dafa ñëw au fur et à mesure mhm. donc ñu bi ñu bëggee affaire bi tamit dañ doon bëgg di représenter ko di ko nuroo mhm. comprendre nga ce qui difficile man dama daan sol ay dàll yoo xamante ni damay dem Colobane ñafe ko mais dama daan dafay bëtt sax mais damay damay am nu ma ciy toogee ko <laughs> comprendre nga. parce que voilà yooyu yëpp dañ ko dund. Euh, dama dama doon dem concert taxaw duma am lu ma sol ñu abal ma dàll. comprendre nga ma yéeg te sama copain mu ngi fii ba tey. abal ma dàll ma yéeg jouer pare joxaat ko dem di tukki dem ay Thiès yi région yi bu ma waree jouer fenn jël sama benn jiin wala yére dindi jaay ko. pour dem tukki tu ainsi de suite da nga daan débrouiller quoi am na benn photo bu daw bu nekk ci internet bi bu ma solee benn euh, tuba yi nii déchiré nii mais jean boobu. jean boobu sa bi ngay def générique xaw ma moom nga solaat du moom du même yére bi mais je veux dire c'était pour mais en fait euh, solo boobu c'était la première fois may door a yéeg ci kaw scène c'était mon premier spectacle c'était en bi may am CM2 ah bi may def cm di def entrant en sixième li ma defee en six entrée en sixième ba pare la en sixième mais li intéressant si loolu maa ngi fàttaliku gis nga boo xoolee chemise bi am na lu ma taf fii ci étiquette ji chemise bi laa jël taf ko fii parce que da doon dagg ma dagg quoi oh. tu waa may sol Lagos ci biir bàyyi jean déchiré bi mu xotteeku noonu ma jël ko ak dàll yi kenn xamul yenn xeetu dàll la <laughs> mais da ngay débrouiller pour jëm ko teg comprendre nga mhm. pour affaire bi mën a mën a mën a mën a nekk pour que nga jéem a nekk donc bu la yàlla demee ba di lay dimbali ngay am tuuti sag après dafay baax itam euh, fekk galéré nga aussi pour comprendre yan mooy brain yi jàng ci école yu baax xam nga sa mhm. copain yi sol yàlla yi marque yu baax yi mhm. tout saa xam nga vraiment day dem ba benn instant da lay noppal si nga mën a nga mën a comprendre lan la laaj ci solo pour mën a nekk fenn. effectivement alors wax nga lu am solo parce que lu tax ma laaj la côté boobu am naa sama benn frère boo xam ne euh, bu seetaanee dina émission bi na comprendre Pape moom euh, bokkoon na ci lu mooy parce que sanse bi quoi moom moom la ko bëggee sax quoi da wax mu ne la man bu may bëgg a rap sanse bi moom ma ci njëkk dugal parce que muy Fata muy Nigé Dia donc euh, ñoom laa doon topp ci côté boobu. mais da nga wax lu am solo. ñëw nga ci coté boo xam ne dañ ciy dugalee muy ce son bi bi nga koy def. alors Fata da nga dem ba benn instant après Envie FM après vraiment hip hop euh, hip hop feeling par rapport ak acte yi nga xam ne posé nga ko ci hip hop bi mhm. euh, jeunes yu bëri aussi commencé di la suivre ñu bëri aussi nga commencé di leen tendre la mai mhm. mais après Fata il il commence à déranger en fait mhm. que ça soit côté animateur yi côté hip hop bi on a vu le son générique voilà donc euh, demoon nga ba ci yenn concert yi sax pour nga yéen ci c'était un problème mais lan moo la doon motiver en fait bon après sénégalais personne quoi dañuy ci problème dañuy. attardé li nga doon def. Ah, mais Sénégal yi ah, Sénégal ah, dañu am problème personne yi dañu am détails yoo xamante ni sont très émotifs aussi nit ñi fii dañuy émotif ñun quand on parle de l'art musique dafa ubbeeku. ku nekk am nga droit def li nga bëgg def. Mhm. sans nag kenn war la si mere. Mhm. mais Sénégal rek laa gis mu nekk dëkk boo xam dañu adapté benn musique muy hip hop. di ko revendiquer comme gendarmerie fii rek Iba bu dee dañ ko topp si ni ko américains doon defe léegi boo demee États-Unis nga xool peu sont des gens qui sont restés aussi authentiques peu te ña fa nekkoon la woon mais pas il faut qu'on le accepte qu'on accepte que cette nouvelle génération du hip-hop américain mm-hmm. rares sont des rappeurs qui sont aussi authentiques ça veut dire quoi ça veut dire que man euh, bien que je des service au hip-hop ci ay émission yu ma doon def mais man je je portais garant à des initiatives yoo man ni c'était par rapport à ma musique. Mhm. pour di innover di def yeneen ak yeneen mais gars yi ils du temps par rapport à ma personne. ce qui n'était pas xam nga intéressant mhm. parce que man tout le temps dama naan jëma jëmm ji amul amul solo mais li ñuy wax moom solo te pourtant bi ma koy def moo ko def exprès pour tayle sama bopp pour tout une génération tu vois pour que génération lëmb comprendre ne musique dafa évoluer. Mmh. Alors, mais Fata, tu toujours hors du Sénégal, donc, mais tu imposes toujours ton style de musique. Mm-hmm. Tu t'imposes toujours, malgré cela, euh, à chaque fois, il y a un secret. Bon, moi, déjà, on est passionné, mmh. on est vraiment très passionné, mais musique, bi, ci nekkee tamit yàlla dafa def ñuy gëstu di dem ba nekk ci dëkk bi nga xamante ni moom la ñuy wax ñoo moom mooy parce que sama benn waaye dafa moom su wax ne ma bu fekkoon tukki woo wala nekkoo Amérique dina jafe nga gëm gëmloo ñu leneen ci hip hop donc ça veut dire que ceux qui font des critiques à mon xam nañ ni xam naa luy hip hop xam nañ ni xam naa les le procédé mm-hmm. du hip hop mais aussi xam nañ ni ragaluma changer paradigme ragaluma ko quoi man li ma ko ragalul te am ouverture tax na Euh, la nature a horreur du vide cest à boo deful dara ci biir loolu sa carrière da ngay nelaw soo adapté wul sa da ngay nelaw te adduna bi fi mu tollu léegi c'est l'Afrique qui est au devant la scène te sénégalais yi africains yi ñu ci bëri xamuñu ko te man dama koy wax ni c'est au-delà de cette musique gis nga le le de George Floyd là mm-hmm. aux États-Unis mm-hmm. dafa dem ba changer la lecture en tout cas des Américains des Black Américains de de de la diversité. dañuy xool léegi dañu nangu diversité nangu si xool seen bopp ci fu ñu jógee dem ba gis ni États-Unis adaptétu leen ñoom bu baax ñoom ñu gën a conforté wu pour di gisiwaat seen ay mbokk américains. def genre boo gisee ay te te loolu nag message yu bëri la yu feeñ léegi gis nga à la limite comme une loi fédérale bu américain yi def boo xamante ni dañ ne léegi multinationales yëpp dañu war am seen égérie yi ay black ay nga gis ay Louis Vuitton du ma wax marque yi ñu bëri. Mm-hmm. ñu ci bëri léegi dafa am seen modèles yi ay black te seetlu bu gën a sori mooy lépp loo defati ci Amérique ci lu dunoo Euh, événement wala lu mag loolu moo tax nga gis ay renaissance tour bu Beyoncé nga gis albumu gars yi muy tudd mu am ay affaires yu authentique des rappeurs américain très célèbres di revendiquer la diversité mm-hmm. mais ça veut dire beaucoup de choses ça veut dire quoi ça veut dire que xat boobu ñu doon ñuy xat Amérique tu sais les blacks sont à moins de quinze pour cent aux États-Unis léegi Euh, ñoom ñu defal leen ay application yu bees yoo xamante ni ay système dina mën a xool seen deret xam fan la ñu jógee ñu koy def di tester seen bopp di gis ni ñu ngi jógee Afrique ñu ci bëri xam fan la ñuy jógee ñii 30 pour cent gana 40 pour 5 70 pour cent Sénégal 80 pour cent euh, Gambie 30 pour cent pour cent Guinée équatoriale genre mm-hmm. science dem ba yóbbu nit ñi ci foofu donc man pour man lii c'est au-delà de de ay rab quoi ñun dañu dañu bokkee dañu bokk black américains yi nekk Amérique yëpp ñu ci bëri ñëpp sax à la limite Afrique la ñu jógee y a des pays y a y a euh, aux États-Unis yoo xamante mais américains yi ñoo jëlsi woon ñi français yi français yi ñoo jël si woon af esclaves yi yóbbu leen si yeneen dëkk yoo xamante ni basé wu fa ñu yóbbaale culture yoo mel ni ay lingeer yi fii boo demee si dëkk yooyu da ngay gis fekk leen ñu kaalawu dañuy muuru ba tey aux États-Unis mais justement noonu la culture mel c'est au-delà de du rap étymologique parce que le hip-hop a commencé dans le Bronx dans les 70 avec quand on te dit DJ mais DJ bi ñuy bu ñuy foo yëpp amagul woon tur. te amoon na message bu ñu doon jagleel. mais amul woon message amul woon tur même le nom hip hop bi ñu koy wax amul essence amul essence amul wax bi du woon dara. les vidéos sont sur YouTube c'est des gars qui te le Grandmaster Flash lui-même qui fait partie des pionniers mm-hmm. nee bi ñuy njëkk a commencé di wax hip hop dafa am benn militaire ku waroon dem armée le lendemain fekk Cool muy def ay block parties. moom moo jël micro bi rek osé di wax hi hi hi hi hi hi noonu la hip hop ñëwee that's what hip hop mais loolu noonu bi muy commencé amul sans essence amul signification àdduna di évoluer nga am ay Big Daddy Kane nga am ay Zulu Nation ñuy jël ay. essence di ko teg ay ay professeur KRS One mhm. ñu lay wax ay rhymes what is the rhyme lan mooy freestyle mhm. di ko jàngale au fur et à mesure muy évoluer léegi yow ñun ñu nekk ay sénégalais période yooyu la ñu adapté wu nag si hip hop ñun oh, ñun hip hop mi dugg si ñun si un peu après 80 mais léegi ñun ñuy adapté wu si ñoom jël affaire bi naan ko di lire livre yi di xool internet yi di rechercher di gis un gars comme Jaco bu bind ne hip hop mi ngi yi naw hip hop means hip mooy maalin moom hop mooy dëgg genre. keneen nga tëlaat dugg ci internet bi ñu gis euh, fataa bu bind fenn. daal di commencé bëri daal di commencé bëri. effectivement léegi nga sa biir xel yaa ngi fu sore yaa ngi Afrique benn dëkk bu ñuy wax Sénégal. sa yenn grand yi demoon tukki jóge États-Unis ñëw andi ay CD jam la ay Daz Effects ay MOP. ngay ngay ngay inspiré wu ci ngay inspiré wu si ñoom. so nga dem ba di connecté wu am jab bi vibe bi si biir kër gi ñu ñëpp ci loolu la ñu màgg moo tax mu gars yi duñu ma comprendre su may wax ne je le dois au hip hop ñoo ma xippiloo hip hop bi moo ma xippiloo J'ai commencé comme tout le monde ici. J'ai commencé à danser, faire les mêmes choses que je te mm-hmm. di ko Diko djang, diko lire. Mais je me refusais. Je me touki. Son premier album que j'ai fait, États-Unis, je me Afrique. Retour en Afrique. D'accord. Mais Fata, nous avons fait émission de Bossorité, là, du Mola. Ça problème, Qu'est-ce que réellement, quoi, l'origine Non, non, il problème. Moi, là, parce que les dafa joué dafa joué ci benn dafa joué rek juste bëgguma woon waxati si loolu franchement. mais ah, mais non non non amuñu benn problème c' est juste que man je me suis senti un peu choqué bi ma bi ma liiree. waaw dama am sincèrement parce que dañ ma yónnee benn lien benn vidéo bu mu defoon ndekete si man doon wax si rab. taasu amul on s'en fout si maamu taasu papay taasu wala yaay taasu. Mm-hmm. mais période bi mu ko defee nee na dafa yàgg. te man période boobu yëpp maa ngi ma laa dañuy wax ci suuf ci jàmm. loolu moom loolu moom moom metti maa moom dañuy waxante ci jàmm. te bu mu ko defee yàgg na. te di ko defee yàgg na léegi ma xëy suba ñu yónnee ma lien boobu ma yónnee ko ko ba pare xool lan na si réagir. Mhm. mu ne ma booy lii jël ko à la légère booy lii lu yàgg la booy non gars yi ñoo koy jël di ko kii nii après man tamit ju peux pas j'ai pas voulu me laisser comme ça. nga bëgg mu leer ma bëgg mu leer ma wax tamit quoi donc loolu la woon mais. pour man amul dara lu lu lu lu personnel. Mhm. mais c'est juste que euh, fi ma ko gisee tamit ci angle bi ma ko gisee mooy Sénégal dafa nekk ci sensibilité boo xamante ni mënuma def di nekk di liggéey ci musique ak projet. Mhm. def lu mel ni li ma nekk di def nii taasu ndeyu rab nga jël ko bëgg moo bu wax ni ma. dëkk bi fi mu toll wax ma waxu Sonko wax ma waxu Macky Sall euh, jël affaire bi jaxase ko naan wi lii lañ tal Sonko affaire yooyu après c'était un peu confus. man artiste laa si loolu laa nekk. d'accord mhm. au moment où ngay waaj a génnee benn projet taasu mooy taasu ndeyu rap. Euh, mu commencé indi polémique loolu da ko def exprès pour gars yi focaliser wu ci euh, projet bi wala da ko def exprès pour que gars yi mun a dem xooli original rap bi. non origine xam nañ ko ñëpp bind nañ ko origine yu taas bi ñu jege la Sénégalais yi jéemul xam. waaw jéemuñu ko xam. gëstuñu mais mais bien sûr. c'est-à-dire parce que dafa am euh, mot bi dafa am ñaari signification ko mën a jëlee. Mm. taasu mooy ndeyu rap peut-être moom moo mag rap bi. Mm-hmm, yaayam mooy yaayam genre. Mm-hmm. moo ko jur wala. moo ko genre. Mm-hmm. wala. Euh, je sais pas xaw ma nan laa la ko a expliquer quoi Fata boo ci mën wax rek xam na rek da ngay sentir ancienneté. ancienneté waaw yàggaay bi yàggaay bi waaw. taasu moo jiitu rap taasu mooy mooy mooy mooy li ñuy jàngale itam hip hop on nous dit quoi on suñu parents suñu maam yi bi ñu leen yóbbuwaan bu ñu bëggee xiif bëgg lekk ci plantation yi yenn saa yi seen maîtres yi dañ leen di bañ a jox ñu lekk ñu tëj leen. Mhm. ñuy fëgg ci bunt yi pour wax lu ñu bëgg coob. Mhm. loolu yenn saa yi danaa neex yenn maîtres yi ba ñu leen di bàyyi heure coob bu jotee ñu bàyyi leen fa ñuy dóor bunt yi di xuloo ñenn ñi di nekk ci plantation yi di woy te du nee nañ gospel fa la jóge ñen ñoo daan waaw gospel di c'est des musiques qui évoluent Naya bi ngi Bingi su reggae yooyu noonu mais boo ci déglu mu jox la sa musique bu Sénégal fii c'est nous qui les Africains ki ont été euh, exp euh, donc les Africains de, de manière générale maintenant léegi euh, soo gisee loolu nga xam ni ñoom dem nañu ba euh, évoluer ci benn dëkk bu gën a moderne commencé di évoluer ñuy jur ay doom ñi di jur ay doom ñuy màgg màgg ba am nu ñu tal. yóbbaale suñu yóbbaale sa culture. Mm-hmm. loolu rek moo fa amoon yóbbu ñu alal yóbbu ñu leneen culture la ñu yóbbu. Mm-hmm. léegi bu ñu demee ba dem ba def culture yi mu dem ba màgg ba am dara ñu tuddee ko étymologiquement rap. je t'aurais demandé lan mooy rap y a y a cinquante millions de significations de du mot en français comme en anglais rap RAP. y en a qui le comme RAP y en a qui disent rap. Mm-hmm. leur explication cest dire am na soubassement certes parce que c'est de la science ay nit ñoo ko xalaat. <laughs> dafa mel ni rek nga ni ma afrobeat afrobeat bii. boo demee si ay documentaire di nga sentir ni y a un travail énorme qui a été fait pour que mu am léegi du rek ay musique bu ñëw rek nekk it quoi mais un travail énorme des gens en Afrique comme euh, en Europe pour taxawal musique bi donc hip hop noonu la mel les Américains jiitu nañ ñu si structuré nañ ko jox nañ ko fond jox ko forme après mu spread up si àdduna bi. joxe ko benn culture boo xamante ni en Chine si tu vas tu en gavé en baggy en t-shirt avec des paires de Jordan cest à mu dem mu nekk lu culturel. maintenant loolu moom mooy mooy dëgg si si ñoom loolu la ñu xam. est-ce que xam nga ni américains yi boo toogoon ak ñoom bi leen seen maam yi indi bi ñu yóbboo seen maam yi ci doole yóbbu leen ba tey ñu ci bëri mosuñu génnaat jël avion dellu siwaat Afrique ñu ci bëri. foofu rek lañ xam génnuñu Amérique mais ñu bëri si ñoom dañ lay laaj Afrique boo fay dem avion bi ñaata jour lay jël ñu ci bëri si ñoom amuñu passeport loolu seetlu ko amal xaritu américain nga ni ko dama la bëgg invité Sénégal lu mu lay njëkk wax mooy I need to get my passport parce que biir ñoom ñëpp mën nañu fa tuddee ak tukki ak seen ay pièces mm-hmm. mais mënuñu bu ñuy génn mosu soxlawuñu génn. donc ils sont restés dans une bulle pendant des années et des années ba science évolué ba toll ci léegi di leen wax ñan ñooy seen origine ñu tàmm leen doon moquer ci ay origine xamu leen seen bopp comprendre nga ñun africains yi ñëw ci kaaw bi nii dañ mel ni dañu doon xoolee ñun comme seen ennemi parce que dañ ñun tubaab yi dañu dañu wash brain di ñun ñu leen di xoolee ñoom comme ñu amul njëriñ mm-hmm. léegi nag loolu dafa changé nag léegi ñoom ñoo bëgg di ñëwaat seen dëkk mais bu ñu ñëwee suñ suñu dëkk ñun ñu taxaw di xoole di jaay affaire américain ñun mais ñun ñooy nekk ñiy nelaw après. parce que dañ leen te ñoom fekk na ñoom ñu ngi ci ñun te fi ñuy jaar ci ñun lu ci bëri c'est la musique lu ci ëpp mooy vecteur bi. alors euh, ñu bëri nag lu ñu mënul comprendre Fata mooy euh, Fata bu CBV nga xam ne da nga daan gis muy combattre l'injustice dans ses textes. Euh, moo dem ba beneen instant gars yi gis ne comprendre euh, engagement bu ñu doon xaar ci Fata gisatuñ ko c'est quoi problème engagement dafa am tolluwaay dafa am fu muy tàmbale ak fu muy yem wala peut-être dafa am problème de compréhension ci côté boobu. mais engagement bi gars dañu dañu dañu dañu rek <laughs> yéen ni muy poser question bi parce que tu fréquentes carrément tu es I feel you, but we all hip hop. Mm. mais engagement. ndeysaan man daal Sénégal moom xam naa dama fi jógee rek dem toog benn yoon. Sénégal Sénégal dañuy yàgg di yàq seen ay ay ay ay ay ndaanaan. Sénégal dañuy suul ndaanaan. <laughs> Sénégal dañuy yàq dañuy yàq seen i ndaanaan. Mm-hmm. naa wax ñaari wax te yow laa koy wax exclusivement sa émission bi. man lépp lu may war a def di ko répondre di ko wax nit ñi dañ ma soit da ma dégluwul pour dégluwoo ko wala xamoo ko mais wax naa ko sama musique moom laa ja mos a jàpp comme vecteur de com. Mm-hmm. mos naa wax ni. si tu bien si ñooy soos. comme kaas nañu ba tàyyi te nguur gi faalewuñu man dinaa dem defi leneen lu dul toog di wax si politique. balaa boobu lan laa def dama defoon saax-saax bu mu tax bu mu bu mu bu tax. waa PS de leen ko si sinon ngeen am ay décès yu amul seede. <laughs> période boobu mooy soppi Sénégal si lay njëkk xam soppi ci Ablaye Wade. Mm-hmm. période boobu moo wax la benn affaire en tant que nit rek. Euh, ay Modou Diagne Fada yi ngay gis tey ñu nekk ay nit gisee leen gisee seen ak tant d'autres kilifa tey mais ñooñu ay étudiants la ñun université sonn si ñun di ñu woo pour ñu te ñun ñu ngi doon yéeg pour la patrie di yuuxu ci dëkk bi di bind ay textes yoo xam ne dañu si doon wër pour war ñu yóbbu si jeel bi xumaan eh, et tant d'autres. je me rappelle période Ablaye Wade bi mu njëkkee premier bi mu waree dem deuxième tour def nañ concert bu rëy stade Iba Mar ba police di ñu topp. c'est-à-dire affaire yi par étape la tey c'est la c'est mooy période euh, ngay gën a dégg tey ay benn euh, ni doof mm-hmm. wala benn euh, xurum xaax mm-hmm. mais boobu ñoom nekk ñu fi woon yaa ngi comprendre nekk ñu fi woon te da ngay fier si di leen war a gisee nii mais man su ma demee par gis nit dof man sam bopp fekk ko si jeel bi ne ko saay non ne ko xoolal sa waa kër sa njaboot bàyyi leen xel parce que Sénégal lañ nekk ñooñu fi nekkoon doon kaas rappeurs yooyu yëpp daan fi kaas fan la la mooy seen seen seen seen retraite est-ce que état bi ñëwaat ab Wade est-ce que daf fi créer loo xamante ni comme en France si les rappeurs aujourd'hui bu ñu amee artiste bu mu mën di doon en France soo demee inscrit comme un euh, intermittent de spectacle da ngay am retraite mais fii est-ce que am na lu fi am nuróog artiste boo xam ne bu bu bu retraité dinañ ko dimbali. Mm-hmm. fii artiste bu fi génn album day jaay ba ci booy yu bees yi kan moo fi jaay dara. léegi non il faut qu'on soit sincère avec le même peuple qui aujourd'hui di la topp naan la ay waxal ci askan weeg waxal bi ñuy wax ci askan wi ñoom dañoo nekkoon soit xale wala boog xàmmeewuñu mm-hmm. waaw loolu benn la ñoom parce que ñoom dañuy xaar si politique pour jàppale ñu ngi wax si askan wi mais ñun bi ñuy wax si askan wi te mu jar lépp retour bi mooy ña fa nekkoon ñëpp génération boobu ñëpp ñu ngi ci kaaw bi léegi grand yi nekkoon fii doon rap dëggantaan di wax ci askan wi ñëpp ñu ngi ci kaaw bi lu ko waral parce que askan wi jàppalewul leen taxawul leen dañ leen seetaan mhm. amul benn finalité ci rappeur bu euh, bu yàgg fi nekkoon pionnier mhm. ma donc donc man su ma gisee ku may taxaw naan ma waxal ci askan wi kenn déggula ci askan wee ku dégg dama damay bañ ñu yóbbu ma ci ay connotation politique foofu la affaire bi nekk mhm. j'avais choisi de parler plus ci sama ay si sama si si sénégalais yi si société bi wax ak nit ñi parce que tamit nit ñi bu politique bi amee feebar tamit nit ñi am nañu feebar. Mm-hmm. nit ñi dañuy yàqante si town bi dañuy fen dañuy sos. Mm-hmm. dañuy jël nit neexoo leen ñu yàq la waxal lu dul dëgg barki démb waxuma la Mollah barki demb rek Tunkara maa ngi ko dégg mu bind ne Fata et avec Thione Niang ay l'état ay fen la mag dëgg mag la te dafa fen. man du ma man du ma je mange pas mes mots man bu may nit di xalaat ne ay dina Fata non da war a bàyyi gars yi di leen bàyyi non if you have something to say to me you gotta prove it lu ne man dara la séq ak Macky Sall na ko na kenn prouver loolu c'est pas vrai dama bëri lu ma mett ci dëkk bi ak nguur gi comme ni mu ko ni ko ñeneen ni mu mettee ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. ci dans le fond ak ma dolli la nga xam Prodac bi ngay dégg nii si coow li man bokk naa sama structure Build Africa bokk nañ ci nekkoon premier ci appel d'offre bi Build Africa on est deux on était trois avec deux entrepreneurs sénégalais qui vivent en Europe man ak Alpha ak Bakary ba tey ñu ngi liggéey. c'est moi qui est man man c'est moi qui avait ramené le directeur technique de l'époque de de de la Prodac du Prodac man maa leen yóbboon Allemagne Wismar. C'était la, la deuxième boîte en Europe d'énergie de, de, solaire. C'est plus sérieux que. dafa gën a sérieux sax li ma lay wax quoi. ñun ñun demoon nañ ba jàpp ni ñooy nekk premier ci ñooy décroché marché kii ba bi ñuy xëy suba di dégg problème yi ci am ah. et tant d'autres j'ai entendu dire par exemple kenn ku may wax ne ma euh, Fata euh, Aminata Gueye moo ko présenté Mansour Faye ba Mansour Faye nekk sama xarit. man Mansour sama kër la daan fréquenté Mansour Faye actuellement mi sama kër la daan fréquenté Saint-Louis Aminata Gueye bi muy avant nekk député bu daan ñëw Dakar maa koy andi weekend ak sama oto oh. nit ñi duñu ñu xàmmee Mansour Faye sama grand frère la mosuma defal dara ci ci ci wàllu lii ñi saayir yi ñu nekk nii dara mais sama grand la dama koy respecté comme nit est-ce que nga mm-hmm. du ma jógee foofu euh, des projet gis naa fi accident bu yàggul bu sérieux bu cinquante personnes bu dee ah. mooy woo samay copain rappeur yëpp ñoom ñëpp Fou Malade Simon tous ñu ñëw fii ñu ñëw studio bi ñu def ñu ñu def benn morceau. effectivement. bi war a génn Fou Malade sax moo ne ma booy fii nañ dem gis gars yi ANASER pour ñu def ñu ñu ñu ñuy financer loolu quoi pour mu war a génn pour mu am ay capsule yoo xamante ni day dem ci askan wi ñuy xool ñu ah, ñuy dawale ci askan bi <laughs> émission baa ngi clip baa ngi fii ak vidéo bi je te le donne en exclusivité nga dawal ko. pour te dire li ñuy metti ci suñu dëkk bi. ñun dañ koy dund comme ñeneen ñi toog seen kër di am lu leen di metti comme ni ñuy mettee liberté si ay Ousmane Sonko et tant d'autres yu nekk si jaal bi. Mhm. mais on peut pas m'obliger à parler que de la politique. non non artiste laa dama war a wane feneen samay domaine domaine bu moom lu ma mën a wax leneen dama war a am yeneen thème man je dois parler de l'éducation je dois sama album bii di ñëw nii boo ko déglu léegi su ma la doon séance d'écoute je parle d'autres choses. parce que pour man Sénégal paysage bi ñu bëgg yóbbu nii politique bi di wax di yàq nit ñi di wax di inventé di di bokk na ci liy sonal nit ñi ci politique mm. Sénégal parce que ils sont ils sont minoritaires on peut pas obliger les gens à avoir une pensée unique man Déthié Fall sama copain d'enfance la oh. tu vois copain d'enfance laa lay wax maanaam fu ma ko fekk mën naa ko songu ñu du draayeen xam na bu baax ak jabaram samay gaay lañ nii lañ comprendre nga. un gars comme Thione Niang sama waay la c'est-à-dire jeune bu nekk ci États-Unis dem bi ma déggee sax mu kii di ko Mollah di ko mbalak dama naan parce que xamul quoi man du ma complexé man aw ma sama life aw ma complexé aw complexe. su ma fi initier la la jeunesse à à la culture. non mais lu gën a graaw. Mm. mooy dofuñu ñun dañu am seetlu boo demee Maison Blanche. da ngay gis ay yeneen booy yoo xamante ni américains yoo xamante ni ñu ngi fay liggéey mais ci coon moo leen formé xam nga loolu moo gën a de booy taxaw di wax naan ay nit ku ñëw ci benn endroit pour am complexe donc yow yaa xamul lu xew. Mm-hmm. ku ñëw 10 quinze ans ci benn dëkk jóge fii amoon problème mu kii dem ba toll ci benn dëkk. dafa am fa nu mu fa toll ñëw bëgg bëgg a ñëwaat ci dëkkam da nga war a encouragé. Mm-hmm. da nga war a mm-hmm. Sénégal moo tax ma ñu leen Sénégal ay dañu mën suul ndaanaan dañ lay waxal ak di la waxal yoo xamante ni yow doxoo si. Mm-hmm. waxoo si. yaa ngi liggéey lu bëri ci suuf duñ ko xam mais bu ñu bëggee yàq la dañ la koy def ci benn fan. moo tax j'aime bien euh, euh, oustaz Modou Fall bi ma ko déggee muy wax ni Sénégal lan la nit ñi di daw lu ngeen di daw lu ngeen di laaxatu boo deful dara looy daw luñ lay waxal ngi la ngay bàyyi mu sedd non non non non non sénégalais nga. soo deful lu aay waxoo fi lu aay kenn bu doo nangu kenn dëggaate la romb. dëggantaan yeah absolutely I'm euh, am na solo Fata solo message solo parce que tamit euh, da ciy baax ñi nga xam ne ñu ñuy seetaan ñuy xam. parce Sénégal moom dégg naa ak foog naa rek lay dégg donc euh, mais xam naa c'est rare nit dafa def ko donc nañ ci bàyyi xel bu baax mais damay ñëw ci beneen côté boo xam ne balaa ñu ñëw ci ces projet tout mais dafa am projet bi ngeen daan def temps CBV. Mm. histoire da leen jox dëgg tey. Mhm. parce que bu ñu toogee tey di nit ñi di waxtaanee ci article. Mhm. article tel article tel. waaw ñëpp war a nekk juriste. waaw ñëpp bëgg a nekk juriste mais pourtant mhm. yéen da ko doon énumérer muy leer. am na ñu bëri xam ne ci yéen lañ xamee yenn article yi. mais est ce tey on peut s'attendre dans l' avenir. c' est vrai que peut être a mënatoo continuer. nga am ay ndaw tey nga jàppale leen. ñu continuer vol un vol deux genre affaire parce que article yi bëri absolument bien sûr man je pense que euh, loolu dafa ma fay toog ba yàgg man moom may yóbbu lu tax ma ne la bëgguma di def yenn débat ak di wax wax yu rëy yi surtout ci affaire politique mm-hmm. euh, man sama ingénieur bi ñi may liggéeyal ñëpp pratiquement ay pro Sonko lañ te dañuy vivre ma ak ñoom dama respecter ku nekk sa choix sa àdduna man loolu laa mel nit boobu laa c'est pas pour autant que su ma gisee lu ma metti feneen du ma ko du ma duñ ci discuter. aw aw ma problème boobu parce que faruma fenn. waaw faruma fenn ci ay politique yi. Hmm. man ba ma gëjee ku ku may xalaat ci déglu sax sama da ngay da juum parce que man damay damay jàng nit ñi par benn di leen déglu mais dama dama bëgg di féetewoo déglu ba pare balaa may wax dara xam nga loolu lan la ma jàngal. Hmm. su ma gisee ay débat wu justice bii nii Sénégal avocat yi far ci bii wàll. li ñu lay wax toujours ci avantage boobu la. noonu la ñuy gisee avantage <laughs> ñeneen ñi. noonu la ñuy waxee mais boo jàngulee droit da ngay am problème. far rek ngay wax dangay ngay far rek moo tax ngay d'accord kii. mooy li ngay wax nii léegi moo dellu ci c'est-à-dire euh, te sew sew euh, loi ak sew sew droit en tout cas toll na foo xamante ni boo ko jàngul woon doo ci nekk un technicien donc man bëgguma bokk ci commentaire yi. di commenter nii rek di waxte xawma xaw li may wax quoi. Mm-hmm. donc ñu bi ñuy def CBV dañu defoon benn euh, suñu waaj yi nga xamante ni moo doon pénitencier bi dañu defoon ci ginnaawam le pouvoir judiciaire mobile. ça veut dire le pouvoir judiciaire qui se déplace et qui va voir vers les gens. xamal leen mhm. c'est de moo tax c'est des choses qui doivent exister. Et ça a beaucoup marché. di jàngal nit ñi ñu xam lu mu gàtt gàtt dara say article mhm. mais du jeex cest à univers yu dul jeex la. j'en j'en profite pour rendre un hommage yow solennel à mon frère Gougou. mention spéciale parce que CBV si sama parcours bu ma neex la. te dara changé aussi ba léegi nii waaw. Mhm. alors euh, gis nañ euh, projet bi nga mujjee génne global. citizen global citizen mu nekk projet bu nice mais dañ ci est que sonorité yi ñu ci amoon sonorité africaine mhm. musicale yi ñu ci defoon mhm. est-ce qu'on peut à ce que projet bi di ñëw. ñu gisaat les mêmes choses wala dafa am différence et puis lan moo la poussé aussi nga changé waat dans ce cas. Euh. style boobu bu dee am na. Euh, bon c'est une parce que bële maa nga tuddee Global Citizen euh, léegi bii ma tuddee ko taasu Ndayu Rap bii li spéci li ko spécialal mooy ay taasukat kese laa si bokkal album bi yëpp am nay Ndéla Xalaas am nay Papa mm, am Bongo Adji Diarra. Mm-hmm. Seka tout ça mais c'est une manière de dire que différence bi mooy. ay rythmiquement dama nekk doon wane carrément euh, li fi taasu di placé wu ci biitu rap ak fi fi fi rap di placé wu aussi donc euh, c'est tellement bien fait que musicalement boo koy déglu da ngay naan kii si beneen univers la y li un livre un morceau si que j'ai fait bu tudd euh, tagg tagg donc boo xoolee refrain yi benn géwal moo koy def di wax di kañ par exemple di wax si Lat Dior nga ne Lat Dior Diop ngeen la laatir ngeen kërën kërën. si comme boobu doon tàgg sa bopp mais xam nga xam nga loolu. yow mais yow tu es à l'aise quand mais tàgg laa ko tuddee. pour ramener aux gens à ce que ñu xamee noonu mais bi ma ko waxee bi ma nee tàgg dama jël benn pëpësa mu tàgg Cheikh Anta Diop. Mm-hmm. Mm-hmm. tu vois rapport c'est pas que je l'ai invité ci sama featuring man mais dama ko invité pour mu wax si Sénégal. xumaan mu wax si Cheikh Oumar Fouti Tall butigu mu wax si euh, la Dior ainsi de suite cest dire il un, un morceau qui qui ressemble à ça. mais livre la. livre la album bu doy waar laa lay wax ni la lañ def ni donc euh, pare na pratiquement c'est dommage l'ingénieur nekk fi pour ñu waroon si xool mais c'est un album macha allah que j'ai que que je trouve. xam nga vraiment honoré de l'avoir fait avant may bàyyi wala ma mu nekk si leneen tu vois non maanaam amoon na solo ma def ko mu nekk stamp like un tampon si li ma bëgg woon gars ci album yi si si si si ba pare maa ngi ko bëgg couplé ak un concert xam maa ngi def lancement bi le 6 décembre j'ai une délégation de inchallah de 30 américains qui viendront mhm. ce sera au Terrou-Bi panel boo xamante ni day interactif invité naa benn plateau hip hop sénégalais yi ñenn ay autorités officielles comme traditionnelles ba ci ay jaraafu Dakar bi ñu toog ñu xaw a fësal tuuti culture. Mm-hmm. y des hôtesses ak mère Oumou Sy aada ak cosaan biir teeru bi tu vois. ko noonu la noonu la war a deme le soir loolu bëccëg bi la. le soir bëgg naa def showcase bi ak artistes foofu tamit quoi ñu ñëw xool l'album sera disponible ce même jour. su forme de clé USB. boo xamante ni dama def clé bi def ci son yi mais aussi defaale si ticket digital au grand théâtre wow. comme si je leur offre ça à 5000 euh, pour que bu ñu ñëwee tamit grand théâtre war fa fekk benn village. benn benn village bu nekk ci dëkk bi Sénégal ma tegal leen ko foofu. tu peux voir un professeur Massamba Gueye sortir par la quelque part pour faire mm. du slam. Si. Tu peux voir Ndjoletal qui vient de l'autre côté avec des rythmes, avec une batterie. C'est-à-dire <laughs> c'est c'est c'est man pour man foofu lañu nekk ñun. Mm. nekk ñu ci di werante. nekk ñu ci di xuloo rek quoi ñun dañu nekk si ay réflexion yu mën a jëmmal hip suñu boobu suñu bos. Mm. ñun waruñu def afrobeat xam nga. ñun waruñu def afrobeat. Mhm. c' est it's Nigerian and it's but ñun dañu war a def rap mbalax loolu dañ ko war a def. d' accord alors Fata bu ñu ñëwee ci euh, sa projet bi parce que quoi qu'on mm. puisse dire. Mm. Euh, est nécessaire actuellement. Mm. jamono ji mu nekk nii. musique bi di évoluer. ñu war a toll ci ay yenn critiques yenn kii est ce que loolu c' est nécessaire quoi par rapport ak jamono bu ñu toll nii. est-ce que c'est nécessaire jamono bu ñu toll nii mm-hmm. euh, nga xam ne musique mu ngi évoluer ñuy focaliser wu ñuy fo ñuy def focus ci ay wax yu sew mm-hmm. yoo xam ne euh, donc euh, baax na wala baaxul ci mm-hmm. hip hop bi alors que on voit que boo xam ne chaque année da ngay innover quoi innovateur da ngay innover ci partout mais chaque fois ça fait du bruit waaw waaw mais loolu mooy wax bi c'est-à-dire man loolu mooy li dommage c'est-à-dire Sénégal moom sénégalais yi ñoom problème dafa am ñuy stagné ba pare ils sont sama gaa yi dañu émotif dañoo dañoo nekk ay nit yu yu yu yu yuy waxee xol ak dënn man damay gis boo waxee taasooy ndeyu rab wax ko ci internet bi message yi may génn di jot ñu koy mel ni ñuy xeex di dóorante kurpeñ taasu ndu ndeyu rab taasu rab parce que xam nga problème bu njëkk bi mm-hmm. regard bi ñuy xoolee taasukat bi kon image boobu mooy problème bi problème bu njëkk bi loolu xam nga man dama dindi dama am lu ma kase aussi rab sénégalais mooy image bi ñuy xoole use euh, euh, woykat yi. Mhm. ay Waly Seck ay ay ay Sidi Diop wala ñeneen. Mhm. man maa ko kase. regard boobu man maa ko kase booy génération yi di mbalax yëpp bu leen rappeurs yi ñemee man maa ko def donc ça veut dire quoi regard bi nga xam ne rappeurs yi moom la am ci taasukat bi dama koy kase. dama koy kase parce que xam lu tax nekkuma ci seen jëluma taasukat bu war a loxo ah buy def ay kecc góor buy meññ nekkuma foofu quoi mais fi ma nekk mooy ci rythme te taasu dafa am rôle beneen bu mënoon jouer ci suñu société. bu bokk ak ni ko gars yi xoolee xalaat ni affaire fecc laak ay wax ay wax yu ñàkk solo déedéet. Mm-hmm. dañu ñàkk xam suñu bopp dañoo ñàkk xam suñuy culture kebetu taaxuraan suñ koy wax da ngay da ngay da nga koy jàppe affaire góor jigéen wala affaire yooyu mm-hmm. mais c'était des trucs culturels très mûrs rien à voir avec affaire góor jigéen non non non et lu éducatif c'est le def am na ñu lu baax am ñoo xam ne dañ mais justement c'est le style nag man qui m'intéresse mm-hmm. c'est le style qui m'intéresse et tous ñoom ñëpp dañu nuroo nekk à vocation orale alors léegi Fata ñu ngi waajal euh, yaa ngi waajal benn événement bu am bi nga xamante ne da ngay génnee benn projet euh, projet bu génne aussi day am euh, lu koy accompagner est-ce que mën nga ci ñëwaat. oui bien sûr c'est projet bi. Mhm. Euh, je pense que dafa waroon dafa waroon nekk comme ni ma ko waxee léegi rek lu ma waroon génne la. en tout cas jël na sa temps. oui ba ah. pare en plus. Euh, j'aime bien que que le xam sphère musique di nekk ci beneen ambiance bu dul rek politique quoi. waaw mm-hmm. man man j'aime di créer un peu de truc da ngay dégg gars yi di wax ne sax ay divertis bu ñu ah, divertir. waaw man nag je préfère gàddu dama préfère di gàddu position yooyu quoi. Mm-hmm. Euh, même ñun ñëpp suñu askan daf ñuy soxal ñun ñëpp dañu am jafe-jafe yenn yi te ci mm-hmm. àdduna la bokk. et en ce développement dont nous, dont nous aspirons tous demande du process dafa laaj process parce que tamit dañu dem di tukki nekk ci dëkk yu mag donc booy tukkee dem ci dëkk yu mag gis éléments yi gën a ndaw yi nekk en place pour que nit ki xale bi di judd di màgg di nekk ci benn rêve nga xam ni ñun sore nañ foofu mm-hmm. sore nañ foofu de du benn président wala ñaar wala ñett mooy changer suñu suñu suñu mode de vie. ñun la d'abord temps la d'abord en plus process la du rek ku bëgg jiite réew mi il faut mu xamal leen ni bu ma ñëwee tamit du man maay messi bi. Mm-hmm. pour régler problème yëpp fii ak dix dix ans. parce que mënul nekk léegi nag euh, dafay waral kon ñu bañ a di cultiver haine ci suñu biir encore moins ñun artistes yi. Mm-hmm. ci suñu biir que chacun essaie de ku nekk di jéem wut crédit à travers les hommes politiques wala askan bi pour wane ne yow yaa nekkal askan bi ci nii. Mhm. alors que musique lan la nit ñi xamee aar nga man sam fait mal di dajeeg di xool plateau yi di gis rappeur wala artistes yoo xamante ni il parle moins de la musique il parle plus de la politique ils se pas compte. Mhm. parce que man maa ngi tukki ah, maa ngi xool musiciens yi may gis si àdduna bi dëkk yëpp metti ah. problème yu loi yu bëri am fépp mais musiciens yi may dégg ñuy wax lu bëri ci affaire politique dafa rare parce que ils sont occupés et ils marchent en fonction de leur musique c'est ça mon problème man moo tax su ma waxee beneen affaire bu xamante ni dafa day gën a suuxal en tout cas créer susciter le débat ci arène musique bi yaa en a te diront tout le temps day divertir day def lii non moi je la musique dama bëgg musique dama bàyyi woon jàng bàyyi lépp di def. musique moo ñu neex day feexal xol. waaw dalal xel. waaw te yokk bànneex waaw. def nga son bu naaj. juste thanks waaw donc pour dire que man man dama ko bëgg. Mhm. te dama si xalaat tous les jours donc projet yu mel nii ay projet la yoo xamante ne dama ko gëm euh, pour joxaat encore beneen allure sphère musicale bi et en plus euh, def loo xamante dinaa teg ci loxo jaam itam dara. connaisseurs yi ñëw tamit bu ñu ñëwee dinañ xam ne du woon waxu caaxaan rek je les invite déjà le le 6 décembre ce sera le 6 décembre au teew bi ce sera mais dinaa inviter les éléments clés du hip hop mhm. ak beneen couche société bi en face ñu jàkkaarloog une communauté américaine wane benn brassage suñu diggante ak ñoom mhm. euh, te dafa am solo le soir je vais faire benn showcase ak sama artistes yi ak les les les sites dinaa leen invité yéen ñëpp. le soir par rapport ak euh, présentation album bi. le 22 décembre incha allah euh, moom wala nañu ñëw Grand Théâtre te l' sera disponible le avec benn clé USB boo xamante ni si ngay fekk ticket bi te ce sera disponible sur tous les réseaux Orange Money du Sénégal. mu nekkaat beneen innovation encore. Mhm. ok alors Fata est ce que am nga loo bëggoon wax aussi te laajuma la ko balaa ñuy tàggatoo. merci kontaan franchement. Euh, même yi ma xamante ni laajoo ma ko dama ko sëxal si biir. parce que c' est des choses c' est de lu yomb ne damay nar a toog sama live di ko def. Mhm. Euh, je préfère qu'on en parle. et vraiment suis content. Euh, yow tamit ku jàmbaari gem bi nga xam nga kontaan trop nit ku am respect nga nit ku yaru nga tu nekk si gain bi taxul nga war a bañ a jox nit cër. Mm. tam discipline. Mm. ñun ñëpp dañuy jóge fu sore ñun ñëpp dañu am luñ ñu daj ñun ñëpp dafa am fu ñu jóge donc. voilà suñu génération jeunes yi itam ak nit ñi nekk ci internet bi ak ñi nekk di jeunes sénégalais yi nañu gën a conforter seen bopp jéem a xool ku nekk lañ la mën a defal boppam ci mm. àdduna bi ñu nekk. Mm-hmm. quand je le dis je le et je le crois na ku nekk ñafe xool lu mu mën a defal boppam ak ay waajuram. Mm-hmm. bañ a am focus ci ne état yi ñi ñëw bii ak bi fi nekk di ñëw mooy régler problème yi never go do it for yourself jógal nga taxawal sa bopp dëggal sa bopp yaa xam looy def bu ko xeeb yaa xam looy def bul ko xeeb xeeb moo war a jeex fii Sénégal jeunes yi di am temps wu di xuloo di sànni xeer ak di nañu bàyyi xeex bi mm-hmm. ñu jóg xool lan la ñu war a mën def pour seen bopp loolu bokk na ci li suuxa développement yee merci beaucoup Fata euh, kontaan naa ci yow euh, donc euh, appel bi may lancé rek mooy képp ko xam ne MC nga wala képp ko xam ne melomaanu hip hop Galsen nga toog nga benn jour Fata bégal la wala toog nga benn jour Fata am lu mu def ci yow donc di ci baax événement yu mel nii bu amee donc ngeen ci dugal seeni loxo le 22 décembre incha allah day woote grand théâtre te il faut savoir reconnaître wala di rendre hommage aux personnes de leur vivant c'est très important waaye toog fii di Fata moo tax ma yor micro Fata moo ma njëkk a enregistré son wala Fata moo tax ma nekk rappeur wala Fata moo tax ma xam hip hop wala Fata moo tax ma bëgg rap donc da ciy baax de son vivant nga koy témoigner te ni koy témoigner am bari na. mun na génnee benn son nga dem jëndi ko ci euh, plateforme yi mun na génnee benn vidéo nga dem aimé ko mun na organiser événement tamit nga dem jëndi ticket même bu dee munoo dem nga jëndi ko pour soutenir la personne c'est très important nañ ci bàyyi xel bu baax. mais sénégalais day bàyyi ba nit ki génn àdduna rek ñuy doog wax di doog a def ay témoignages di doog loo xam ne vraiment mënoon nañ ko def sa de de son vivant nañuy rendre hommage di delloo njukkal doomu aadama de leur vivant et c'est très important Fata il a beaucoup fait pour hip-hop galsen cër bu mot sëkk lañ ko war a jox cër bu mot sëkk la ñu mën a wax ci moom parce que euh, ñun ñii bu ñuy jàng dañ ko daan déglu ah ay black label et tout mu ñuy bëggal ci ay son dañ ko daan seetaan hip-hop feeling bu ñu toogee am lu ñuy jokkanteeg moom ak lu ñuy waxtaan ak moom euh, day baax aussi ñu am témoignage boobu ci moom donc di la souhaiter bonne chance et bon vent pour la suite yaa xam li nga bëgg sa àdduna yal na ko suñu borom matal ci barke Nabil Moustapha yàlla mën na ko dina ko def incha mooy lii waaw mu sol nii African certified mhm. su benn sénégalais moo ko def euh, moom markam la quoi ok African certified bëgg naa nga ñu wone ko Mara Sow it's your all yours mu ngi New York City pour gars yi dem ci site yi di ko xool di jënd si bagage am yi tamit merci beaucoup Fata alors c'est un plaisir d'être avec vous dans l'émission hip hop du caaxaan sur Leral TV beneen yoon incha allah ci beneen numéro lay doon euh, dina mi remercier bu baax a baax Pa Omar à la réalisation ma umuy maa lay ziar bu baax a baax ci beneen caméra bi di nuyu aussi Babacar le chauffeur euh, di leen jox rendez-vous incha allah beneen yoon peace love and heavy fun hip du caaxaan respect